kuy sànq. li ma nekkoon daaw daaw ñoo sonal lool. daaw waaw. léegi daal maa ngi ci loxo yi. waaw waaw. léegi ci loxo yi mu leen mu leen de. maanaam lii. macha allah teyal. Thierno mu ne nee na pareegul ci yow. teyal. nee na dafa bëgg. yow ak Djiby ngeen àndandoo répété li ngeen ko wayoon ci Guinée yi. studio lañ jëm ni ah naka studio lañ jëm nii. boo demee booru Cambérène. ah dañ fa njëkk di jinne. waaw. Thierno Moulay. Thierno Moulay Sow. sa bulo. boo demee booru Cambérène. waaw waaw dañ fa njëkk di jinne. waaw. Thierno Moulay. Thierno Moulay Sow. boo demee booru Cambérène. waaw dañ fa njëkk di jinne. waaw. Thierno Moulay. Seexu Ndey Sow taw lay woo. bilaay taw. suba waatee taw lay woo. buñ taaway man may doon buñ doon mu taaw. yow mu lay yow fi ma teg. waaw la teg. waaw ni nga ma waaw yow ni nga ma def. waaw. falaa la def. ni nga ma def. waaw man rek laa la def. suuf waaw. mu def du Cambérène. dëgg la. Thierno Moulay ngi noonu. borom dëgg la. naaru góor yi takku leen. waaw ku man nga war. ndax du tee nga góor. toolu toolu ak lay bu jëlee. Thierno Moulay. borom jinne. Mulai, mulai, mulai, mulai, Thierno Moulay Sow. nee na dogu leen dogu leen. nee na dégg nga foofu Jamala Jili Mbaye. i fata kilaba ki jinde jinde Thierno Moulay Thierno Moulay Sow. Thierno Moulay Sow moo dëkk ci Jamalaay. i fata kilaba ki jinde Thierno Moulay Thierno Moulay Sow. dëgg ci jàmm laay li fa jafe rafet bi ci nekk lay jërëmu lay sow sama doomam tuddee ko Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw Come on, come on, come on. a Wow. Marakunda class. waaw waaw soo ko yàq. Sofula Dieye def na lépp. parce que sol laay. bëgg nañ nga yor ñaan bu baax a baax. kii ba may wax téléphone daa ma jëriñ ko coono def nga lépp Thierno moom moom moom def nga lépp alaaji bay jëndaay waaw nee na nee na xeeb na lool téeméeri junni mu la jox nee na loolu moom xeeb nañ ko trop kontaan nañu bu baax. waaw. waaw. day na yàlla ah. mel. waaw waaw. soxla jëriñ. xanaa doo perte. waaw waaw waaw. waaw waaw. waaw waaw. waaw waaw. waaw walaay ni kenn bañu ko. ñoo ngi neexulee. waaw walaay ni kenn bañu ko. Ibro avancé. Ibro avancé nga jàkkaarloo Thierno. waaw waaw. yéen Thierno neexuleen na. waaw wallaay di ngeen bañu ko. Thierno Moulay neexuleen na. waaw wallaay di ngeen bañu ko. waaw waaw. man maa ngi baax. ñëw. dañu la xoolee ma neexuleen. voilà. waaw waaw. suñu yaakaaru tey ëllëg gënal ñu suñu ndey gënal ñu suñu baay. gën gënal ñu lépp lu ñu am ci àdduna bi mu yont yàlla Muhammad salaa salaam defe naa ne yonente bi awma ci moom sago defe naa ne loolu ñëpp xam nañ ko sama diggante ak yonente bi dafa mel ni euh, altine ak talaata la ndax ni ma bëggee yonente bi euh, awma ci moom sago di ko allahu di ibu naajo ah ndeysaan ibra naajo vraiment euh, woy ma woy bu neex ndeysaan xam ngeen man du may déglu musique waaw ndeysaan ba mu woyee woy bi euh, suñu benn femme décoratrice euh, kii Amina moo ma ko yónnee après ma won ko ma dam Sow mu xool mu ne ma kii woykat la Ibra Naajo la tudd après ñu déglu affaire bi woy bi neex ma lool ndeysaan ma kontaan ci lool ba ma ko ba ma ko dégloo rek dama cee dama cee ñaan ma ne woy na ma de waaye woy bii dana wër àdduna waaw Euh, barke alxuraanu karim waaw parce que man xaw ma ko franchement parle man du may déglu ay woy ndax man li ma yenu dafa rëy man monde jinne laa ne yu bëri duma koy seetaan man sama dama concentré sama bopp mais woy bi moo ko dégloo vraiment mu neex ma lool vraiment ma déglu ko dégluwaat ko déglu dégluwaat ko def ci ñaan vraiment Pape Sidi aussi yónnee ma ko euh, moo nekk ni maak moom ndeysaan nekkoon nañ ci liggéey vraiment yàgg nañ maak moom nekk nañ liggéey nañ ñeenti at xaw ma juróomi at jinne bi ma njëkk daaneel moom moo ko filmé Pape Sidi Baye Sidi moo nekk noonu mooy borom rasa yi jinne bi ma njëkk a wàccee 19 euh, ci jabaru benn policier moo ko filmé ndeysaan moo ngi noonu ñu ngi koy nuyu bu baax di kontaan nag bu baax a baax ci bis bi tey ndax awma jot euh, waaye euh, nit ki bu la defalee teraanga teraanga man lu ma xam ci teraanga man nitu teranga laa dama xam teranga waaw man nitu teranga laa parce que man awma temps kenn ku ne xam ne la xalif général day jinne le roi médecine traditionnelle awma jot waaye dafa dafa def lu rëy ku def lu rëy nag am lu rëy waaw boo xoolee bis bi tey euh, démb lañ ko yëgal taalibe yi taalibe yëpp ñëwuñu sax démb laa leen ko wax démb ci guddi laa leen ko wax vraiment ba ma leen ko waxee mm-hmm. alaaji ma jow kamara ma commandé ko ma ne ko dama bëgg nga indil ma fukki ginaar ndeysaan mu nekk góor gu baax xaafisul xuraan la borom borom xam-xam la bu ko gis mu toog nii nitu yàlla la moom it macha allah waaye wax sa mbaax yàqul dara wax si mbaaxu wax sa mbaaxu moroom yàqul dara ci sa mbaax jour bi ñuy njëkk a xamante ca Cambérène daf ma indil cinq cent mille moom góor gu baax gi téeméeri junni la ma indil addiya mu ne ma dama la gis lépp loo wax nga wax yàlla comme nu ma ko waxee nii ma gis ci yow li nga xamante ne macha allahu bu démb nekkoon maanaam bu ma amoon quarante ans damay ñëw nekk sa wet di la liggéeyal chaque jour mu wax ko te defe naa ne mag la yàgg na ci réew mi gis na lu ne mais boo gisee mu topp ma xam ne ne fii yàlla ak yonent bi moo fi ne ak dëgg moo tax mu topp ma dama ko ne ginaar laa bëgg moom moo taal oto otoom yenu ay dix ginaar yi mag indi ko ma ne ko ñaata la mu ne ma déedéet def naa ko addiya kon Ibra Naajo mii dafa am lu rëy waaw danga am lu rëy defe naa ne yàgg nga woy nag waaye ba nga laalee Thierno Moule defe naa ne ci nga wër aduna waaw yàgg nga woy de waaw la xalif général day jinne loolu suñu boroom la du man defe naa ne suñu borom wàccee na suratul jinne suratu rahman jinne defe naa ne loolu ñëpp xam nañ ko fii la ñu ko fekk te fii la ñu koy bàyyi di kontaan nag bu baax ci bis bi tey euh, bis bi dafa ala dawme euh, gis ngeen suma jëwriñ yi ñoo ngi fii jëwriñ ajaratu ba démb laa leen ko yëgal ma ne leen suba ndeysaan artiste boobu woy ma bëgg naa ñu recevoir ko vraiment dalal ko saafonte ak moom euh, teral ko ñaanal ko ma wax ko ko vraiment ma wax ko yaat ma Gallo ñu wax ko ci groupe bi vraiment taalibe yi ñu ne ku disponible rek ndax bu ñu waxoon ne ñëpp ñëw taalibe yëpp ba bu bu ñëw vraiment ñoom jëwriñ gàllaay ñoom ñëw vraiment mule mule yi ñëw macha allah ñu xëy vraiment ma jox yaat ma ma ne ko demal uti ndawal xar laa bëggoon jënd sax ñaari xar taalibe yi ne ma euh, ndawal bi mooy gën a sakkan kon moom am na lu rey dafa am lu rëy ndax kilifa laa du ma defantu te du ma waxantu hmm, du ma defantu du ma waxantu hmm. euh, vraiment di kontaan nag bu baax a baax ajaratu ndey Cheikh aussi démb laa ko ko yëgal démb ci ngoon daanaka li programmé wuñu ko te préparé wuñ ko aussi sinon bu ñu ko publicité woon nit ñi duñu fees fii comme ni ko gars yi waxee mule mule yëpp takku ñëw vraiment ñeneen ñi ñëwuñu parce que dañ ne ku disponible vraiment mu ñëw seet si ma nag yàgg nañ fi lool waaye li ko jar moo ko jar waaw li ko jar moo ko jar di la dalal bu baax Ibra Naajo di dalal aussi sa gan ñi nga àndal mm-hmm. sa mbokk yi ak sa waajooju dañu bari ah Pape Sidi xam na ci dara xam na ñu bari bu ñu ma buggee woy sax dama koy boole bu ma neexee ma ne la ah mu maanaam mu yëngal Sénégal maay doxal maay boroom jinne yi loolu kay yéen xam ngeen yéen kay xam ngeen ma ñoo dëkk ñoo dëkk fii gis ngeen li may def xam ngeen ma xam ngeen li may def xam ngeen ma bu baax a baax xam ngeen ma bu baax a baax waaw kon vraiment di sant yàlla bu baax di ko dalal gis nañ yar ak tegginam ak dalam ak lu rëy lu mu def moo tax mu am lu rëy li nga am nii dafa rëy dama ne nañu ko wax mu wàcc ngeen woon ko teraanga yiñ ko teral li nga am rëy na de ci kër xalif général de jinne am nga lu rëy moo tax kii mu bëgg a yàkkamti ma ne ko non non amul yàkkamti ah, ndax sëriñ bi moo la gën a yàkkamti waaye dafa bàyyi yitteem yëpp taalibe yi bàyyi seen yitte yëpp ah, toog dara la ah. bu nekkoon ba bërseet sax dangay toog waaw parce que kilifa moo la dalal nag te du ku ne laay dalal nag aussi du ku ne mooy jël sama temps nag ndax man na mu ma président na mu ministre ndax li ma yor yoruñu ko ay jinne laa yor maay doxal non maay doxal de dafa naa nguur bu ñëw day dem bàyyi ma fi sama nguur moom du jeex maay boroom jinne yi maay borom jinne yi de ma président na namuma ministre waaw kon sant suñu borom kon nag kontaan nañ bu baax ñoom daama ngi fi 19 ñoom Aliou vraiment gone yaa ngi fi euh, mbégte rek la euh, vraiment di ko dalal bu baax a baax tey mooy suñu premier rencontre vraiment maa ngi lay dalal bu baax di la remercier ci woy bi nga def neex na vraiment euh, day gën a neex incha allahu ndaw nga euh, macha allahu na nga xam li nga bëgg xam yow yaay kan bañ a nekk benn nopp aussi wooy c'est importance bañ a nekk benn nopp parce que parfois benn nopp mun na la yàqal aussi quoi lu bari parce que li ma koy conseillé man damaa xam waaw dama xam àdduna euh, moo mel noonu boo nekkee mboole jiite mbooloo bul nekk benn borom nopp maanaam yow bu la nit wax dara rek nga gëm ko non non bàyyil ba gisal sa bopp loolu conseil la en tant que rakk en tant que jarbaat en tant que frère waaw vraiment di kontaan bu baax ci moom di ko ñaanal di kontaan ci gaayam yi vraiment di leen ñaanal jàmm parce que euh, teraanga teraanga moo koy fay vraiment li mu def dafa rëy xam ngeen sëriñ bi sax mbirum musique du ay mbiram yéen xam ngeen loolu waaye nag ba mu ma woyee dama ko déglu waaye dama koo déglu ma déglu ko macha allah ma kontaan ci lool ñaanal ko te day law incha allah su góorloo rek euh, mun nañ romb fii incha allah waaw bu góor góorloo mun nañ fi romb parce que aduna noonu la euh, aduna foog nga am wéeruwaay rawatina mbirum artiste foog nga am ginnaaw foog nga am ñaankat dëgg waaw xam nga Michael ngay wax Michael dafa am ñaan dafa am ñaan. ah waaw tubaab yi ñoom ñoo la gën a ñoom ñoo la gën a ñeme sëriñ tubaab yi dañuy ñaanlu c'est nag ñaan yi ñoo bokkul waaw mais mun nga romb foofu yàlla nag moo la dimbali yàlla su la bëggee dimbali dalay booleeg nit ku baax te yàlla dalaa bëgg a dimbali moo tax yàlla def sa biir soirée nga woy ma woy bi wër àdduna bi yàlla dala da yàlla moo la fi yabal daal soo góor góorgóorlu rek mbir yi day baax ah, waaw day baax vraiment kontaan nañ bu baax ci moom di dalal taalibe yi mule mule yi vraiment lii mbégte rek la ndax man teraanga rek laa xam ku ma defal lu baax ni ko kii waxee boo ma def boo ma boo ma lebalee bëccëg ma fay la guddi waaw boo ma lebalee bëccëg ma fay la guddi waaw man nitu teraanga laa man teraanga laa xam moo tax ñu dalal ko nii aw ma temps sax nag waa ndax fan yii dama war a dem Europe parce que moom le vingt cinq kii ngeen wax la vingt cinq décembre man le vingt cinq janvier ma it damaa war a dem Europe def tournée internationale taalibe yi dèjà Fabakary Sonko joxe na avant salle bi kon euh, le vingt cinq janvier damay dem tournée internationale comme d'habitude daaw dem naa tournée defe naa ne macha allah ba may ñëw euro yi ñu euro bëri ñëwoon na ah waaw waaw waaw euh, ren damay dem xam naa ne yéen seen programme bi un mois rek lay teg sama programme bi am waaw waaw mën nga dem ba génn fii dem tournée internationale loolu mën nga di nga ko mën waaw lépp nag ci yow la rek ci yow la waaw ci no ko bëggee rek ni ko bëggee rek noonu lay doxee waaw parce que benn baatin baa ngi fi suñu borom defal nañu kun faye kuunu avant jinne bi sax yàlla daf ñoo def suñu gémmiñ barke ba pare avant jinne yi yàlla daf maa may baatin ba pare après jinne yi ñëw nag jinne yi dafa gën a ñëw mbir yi gën a yokku nag waaw te xam nga ne àdduna bi li fi ne jinne yi ñoom ñooy doxal monde bi boo xoolee li fi nekk la mbirum jinne la da ngay gis mbir yi doy waar doo ko xam yëfu jinne la te nag yàlla dénk na ma jinne yi saan lu ma leen wax ñu def ko lu ma leen wax ñu def ko lu ma leen tere ñu bàyyi ko suñu borom defal na ma loolu loolu sant yàlla rek la man de wax dëgg yàlla na mu ma dara lu ma xalaat rek suñu borom defal ma lu ma bëgg ma am ko ci kàttanu yàlla hmm. lu ma bëgg rek ma am ko léegi nag ku mel ni kooku soo ko jegee benn da ànd ak bëgg ak gëm ak dëggu soo ko defee rek yow it macha allah sa mbir day baax maanaam bul jiital intérêt boo jiitalee intérêt rek da yàqal sa bopp waaw. diggante Firawna ak yonte yàlla Moussa yonte yàlla Moussa dafa jaaxle woon ci digganteem ak Firawna Firawna maajoos la gëmul yàlla. waaye yonent yonent Seydina Musa yonent yàlla Musa Ousmane eh, eh, eh, yonent yàlla Musa jaaxle lool ci ni Firawna mel yàlla di ko seetaan bàyyi ko moom moom moom ci coono waaye ba mu ko jaaxle yàlla xamal ko ni ko Musa de li tax kenn mënul ko dara mu téye yaayam firawna jaxamalu ko dara li mu téye yaayam ndax firawna daawul nangoo lekk mukk te yaayam lekkul ba suur day ñëw sax di ko taxaw di ko jox muy lekk bés ba firawna bàyyi yaay ja demul ca waxtu lekk ga yaay ja lekkul añul ca ngoon sa seetuwul yaay ja yaay ja reerul ci ëllëg sa e, fiir naa aw ñu ñëw ci yaay ji tax bi añuloo démb reeruloo ko dafa daan def saa añ ñëwee reer ñëw yaay ñëw taxaw ma ba ma añ ba pare ngay sog di añ yow ñaari fan di gisuma la moo tax añ lu la jàppoon mu ne ko affaire état bi daal moo taxoon ma aw moo jotu ñëw ñetti fan la cee teg yàlla toroxal ko ci euh, labal ko ci biir géej ñetti fan trois jours et donc mandarga googu gis nañu Ceerno li mu téye yaayam gis nañu Ceerno li mu téye yaayam li mu defal yaayam donc ñetti indication yooyu la bëgg gi mu bëgg suñu borom fonk gi mu fonk cofeel gi mu am ci Seydina Muhammad taxawaay bi mu taxaw way juróom bu jigéen ñett yi tax na man de yii moo ma indi si Ceerno mii yii moo si Ceerno mii ah yéen ñii fi nekk di mule mule defe naa ni samay sët ak samay doom rek a fi nekk ndax man sama taaw am na 67 ans sama tam te def naa yi nit ki am soixante-sept ans bëriwul man naa am waaye xaj na bëriwul konte daal samay sët ak samay doom rek a fi nekk te giñal naa leen nii lépp lu ma yéene sama doom te yéene ma ko doomu keneen yàlla bu ko so sama doom am ba tax na eh, ma leen di ñaax moytu leen giiroo ngeen moytu giiroo giiroo giiroo hmm. loo ko def rek doo ci am li nga bëgg di leen bokk bokk am solo na mi bokk leen ko bu leen ko giiroo mukk bu leen ko giiroo mukk kii nekk fi lu tax Thierno bëgg jiite xëcc kii ba ci ci wetam nit xëccuma ci sama wet loolu bu doon am xel xalaat boobu kenn ku nekk defal li mu wax bëgg ko gëm ko te wóolu ko te muy dëgg ci yéen ku tricher nag c'est tant pis pour yow ku tricher c'est tant pour yow. gëm loolu daal wallahi na ngeen ci góorgóorlu bu baax yéen xale yi nekk ci yoonu carrière yàlla dimbali leen ba xëcc leen boole leen ak Thierno mi góoru leen yow li euh, référence yi nga la jox dëgg dëgg référence bu rafet la parce que yàlla dafa ni doomu aadama yi am na ñaar yu leen may jël leen yéen ko moom lu leen neex defe leen ko seen xalaat may naa leen ko yéen doomu adama jël leen ñu leen neex xalaat leen dama bëgg kii am dama bëgg kii ñàkk dama bëgg kii am malheur dama bëgg dama jël leen yéen ko moom sabab bi ah yët maa may naa leen ko yéen doomu aadama jël leen yéen ko moom te fi mu kay fi mu leer leen may na sabab bi mooy li mu sàkk yépp doomu aadama da si jox xel amul keneen ku am xel ko dul doomu aadama xel gi pour lan la xalaat dama bëgg yegg fii naka laa def ba yegg fa ni ma ko bëggee dama bëgg def lii nan laay def a am ci ni ma ko bëggee e eh, yàlla nee na yooyu bàyyi naa leen ko seen xalaat yéen la seen sabab yéen la waaye nag góoma ñaari branche ñoo mën a ne ren ne ren tubaab buy peese ba ca gën a oyof du ko natt ñaar ñu tolloo lay boole ñuy bëre jaay doole baaxul déggoo ma de li la way loolu sax xamoo ko yooyu dëgg la way wi rëy na neex na gàtt na sax na neex na mën na gaynde way na gaynde te dana gën a gudd naa ñu ne dina gën a gudd ala Thierno naa ñu gën gudd incha allah non loolu par la ndax way bi du yam fii alaa ceetu mu lay soo ay mbiram nee naa la da koy laal rek mu dem laaj ma berki dem ma Ndiaye mu ngi ni toog man je suis immobilier marketeur en immobilier damay def publicité en voix off lépp damay def dama am marché yu bari mu taxaw ma yëkkati butéel jox ko ne ko sëriñ bi man de sama terrain dafa taxaw sama téléphone mu ngi nii day chargé day déchargé wu rek xaw ma lu koy déchargé kar kar kar allo fu site cinq sites maay seen marketeur ci Sénégal fii grâce à moom nee na contrat dina ñëw demal studio bu soobee yàlla saa boo xëyee dama répété ba xam ni et eh, contrat dina ñëw ngay bañ contrat yi di ñëw ngay bañ contrat yi di ñëw ngay bañ di pro ko def ko sa kilifa wax naa la ko bu la kenn boole ak moom suñu borom bu neexee yàlla le roi de la médecine traditionnelle nee na la mooy borom jinne yi bëggal rek yow te kontaan nañu ci way wi encore une fois neex nañu yow ak sa délégation. mooy en or. téléphone en or montre en or xaalis may jox sa or la téye leen ko téye leen alaay Thierno Moule Sow téye leen ko ah moo saw lii bëgguma ko te bu may parier du ma waaj damay jékki ah, bu ma téye bu ma téye bu ma téye. poche bi sirroo ci ne poche bi. mbaalu day yëkkati mu def poche bi moo ci ne. sa biir nam xaalis. waaye poos bi dana nii rek dina ñu ko jox. maa ci xam dara damay dugg biiram des fois banque. mais si sëñ ci kaanu or bi. wax barke yonent bi rek. si sëñ ci kaanu or bi way wi neex na lool. alaaj Thierno mu ngi sow loo ko wax loo ko way. or yaa ngi loolu Mouhamad Ibro. dama la jox ay clé de wuyu ma fii. yaay borom or yi. soppay Seydou naa neex. tuddee sa doom ba pare ñu ne la sa doom yoo am koo koy tuddee nga ni lu ma munti am yonent bi laa koy tuddee am na loo xamante ni xel war nga mun a xalaat ka taxaw nga ne oh, ala Thierno Moule Sow amul diine déedéet mais xoolal li fi ne boo taxawee fii di nga xam ala Thierno Moule Sow li fi ne mais xoolal lu nit ñi di wax du hasard waaye kii fayuñu pour ñu taxaw ñun dañu doon yem ci ñu métier journalisme ah. dañ ci doon yam mais li muy def ku mu doy dootu la doy ku ci waxut dootoo ci wax boo ko wayu dootoo wayati ah. te nag <laughs> ndokk ba nga ko wayee mm-hmm. mon frère bu nga kenn je te donne un conseil bu nga kenn jaxase ak moom bu kenn dugg seen diggante dem ak studio way toog contrat yi moo koy def bu soobee yàlla Ibro waaye nga de ay tooñ nga buur tooñ nga baadoola toroxal nga baadoola tooñ nga buur toroxal nga baadoola man dem naa fi ku ne woon na ko te xaw ma la noo ma ko wayee ak ni ko wayee Ibrahima Nadio nee na li tax mu woy Cerno alaaj Cerno moom sax xamu ko ku ne ko soxla ku ne bëgg na mu toog ci saalam waaye moom li ko indi moom sax xamu ko moom Ibrahima Nadio waajaaji waajaangi dama ne dama ko wax léegi dinaa ko waxaat gaynde daa way gaynde ku ma sa tëgal rek def na it moo tax bëri ko ci mbartal puus day dem ñàkk puus day dem yow nag jàppal ni sa bëri ko ñu ci mbartal bi waaye nag da ko gën a liisal moom gën a liis ku ko liisal alaaj ci moom lay sax gaynde ba ñuy miraas baayam dama ne waaw gaynde ba ñuy miraas baayam gaynde nga ne ba ñuy miraas baayam ba ñuy miraas baayam waaw dana séddoo gu ma séddoo gu ma waaye fàdd ci la bokk te kii lay fàdd